sebelum setan rejim bismillah nyonge ke champion bi Abdou Diouf Abdou nuyu nañ la wa dom day final na la waaw tay nga ñew Lac Rose lan mo lan moy téway eh, bi Lac Rose tay wa bon téway bi Lac Rose moy sama combat Gris 2 yalla def ni bi combat bi taxawé barki demb tay yi lañuy sogo taxaw def xama point de presse waaw looloo ma indi fii tey ci hôtel bi parce que hôtel bi partenaire la ci moo tax ñu ñëw ci école bi waaw. mais yow sa tool tolluwaay ci làmb maanaam nit ñi namoon la trop nga raaroon lan ma waroon raar bi ak nga nga ñëw jël gride 2 xam nga làmb mooy li mu rek làmb ñun dañoo tegale ay victoire yu am solo du dëgg mbër yi war ñoo jël duñu jël xam nga ci laa ci laa bëreeg Forza xam nga yàlla def mu daan ma perte de perte moom it daaw lañu bëggoon suñu combat yàlla def euh, jëlu ma moytu na ma dem jël yi rëg rëg-rëg daan ko xam nga ba làmb tourné waat du dëgg ba tey làmb boole waat ñu waaw. mais en tant que yow ku la xam-xam na yow champion nga. Euh, nga ñëw jël Gris 2 Gris 2 itam maanaam daan fi mbëru mbapat yëpp te yow itam yaakaar naa euh, pakala bi mu tëye fi yow yaa ko daan waaw loo ñu mën a wax ci loolu. waaw xam nga rek xam nga Gris moom man li ma def ci mbapat du ko def ci mbapat parce que man xam nga man mbapat bëri naa fi xam nga tournoi bu nekk du dëgg kon li ma def ci mbapat du ko def ci mbapat Gris 2 champion la du dëgg te Fass vraiment dama daan magam daan fa dafa yàgg nga ay mbër ma jàpp leen di leen daan kon moom bëggul lul fayul ñooñu bëggul lul fayul ñooñu mais incha allah moom euh, làmb la daal. waaw daf ñoo jaral. mais dafa mel ni Abdou Diouf dafa yab waa Fass est que bii yoon noonu lay demee. waaw xam nga rek xam nga làmb làmb moom dafa doy waar quoi xëy na moom am na lu mu sóoraale am na lu mu sóoraale bii paase parce que daan naa fi xam nga forza bi ma daan xam naa moo am moo ko may moo ko may fit comprendre nga moo ko may fit xam nga am lu mu ko waaw moo tax mu nangu maa jël mais làmb ji daf ma jaral daf ma jaral waaw. léegi ngay wax supporter yi lan. waaw di wax rek ñun ay doomu géejawaay di wax supporters yi ñun xam nga ñun ñun bu booy bëggee bëre ñun ñoo tax du dëgg ñun drapeau bu ne indi nañ ko géejawaay xam nga dem nañ Espagne indi fa ay trophée xam nga waaw kon dafa am loo xam ni waaw monsieur le maire Alioune Sall dañ koy xamal ni ko ay doomam moo moo moo xewle waaw na jàpp ci combat bi waaw na jàpp ci combat bi ay monsieur le maire Baydi Ba xam nga euh, waaw di woo ñëpp daal di woo ñëpp ci combat bi waaw. waaw sa mbokk espagnol yi nga wax leen lan. ah waaw suma espagnol yi maa leen wax ñoom ñëpp nañu teew ñëw xam nga gars yi dañuy ñëw ah. non mën naa ko wax man fu ne laay dem mais garaawul ah <laughs> ah <laughs> waaw mais garaawul garaawul xaba rek <laughs> amul problème nañ bàyyi doon rek ju xaba jig Sénégal waaw garaawul quoi waaw ok jaajëf doom de waaw mbokk yi Abdou Diouf moo nekk noonu gis ngeen ko ndeysaan muy ndaanaan ci làmb waaw def fi lu ne nag vraiment dégg nga ñëw fi tey Lac Rose di fi def signature bu am solo waaw ñuy kontaan ci moom bu baax a baax a baax a baax parce que namoon nañ ko làmb namoon nañ ko mbokk yi waaw muy ndaanaanu làmb def fi lu ne nag ci tàkkusaan bu ne mu am ko fi.